asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen di leen wax ne rek ñu ngi leen di baalu àq di leen baal comme niñ ko xamee ci julli bi ñu jógee barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nañu bur boole jéggal ah. ñu fekk koy at yu bëri tey nag dañoo seet si koo xam ne dafa bokk ci làmb donte xale la mais nag yaakaar naa liñ naan marqué empreinte def na ko ci làmb yàlla na ci gën a yàgg muy jamaïcain bu xarañ loo jamaïcain promoteur tey nag ñu bëgg a xam ñaar yooyu lu ko waral ak fu mu ci toll promoteur bi ak àndu motuloo bi jam maa ngi lay nuyu di la ziar sama doomu ndey <laughs> waaw sama xarit sama grand dinañu ñu ñuy suivre ci Leewtoo TV fépp waaye mën a nekk ci àdduna ñu ngi lay ziar di la jox sa waaye rawatina ñi nga xam dañuy dund làmb di nuyu waa parcelle 1 ba 26 di nuyu lu làmb yëpp ñu seq làmb promoteur ménager entraîneur mbër fans club di nuyu tamit journaliste yéen nga xam ne tey fu làmb yegg rek da ngeen ci bàyyi seen waar maa ngi leen di ziar bu wér a wér a wér. Jamaïcain buñ ko dee wax Jamaïque moom ëpp dëkk la la ko ko gën a siwel mooy Bob Marley kuy jamaykee loolu di turu jamaykee fu jamaykee dëkk ci Sénégal bool bool Saalum Saalum jàmbur wala fan ci réew mi. waaw comme ni nga ko waxee rek jamaykee turu dëkk la bu nekk Jamaïque dëkk ba Marley jamaykee mu ngi nekk entre entre Saalum Saalum ak Gambien. sama waaw sama yaay Gambien la sama papa cosaanam Saalum la. waaye bi mu jógee Saalum dafa ñëw fii Dakar hmm. waaw. daal maanaam sénégalo gambien mhm, waaw sénégalo gambien daal bu la neexee am solo mais sa dañuy ñëw directement ci làmb ji parce que bu ñu xamee jamay kenn dañ ko xam ci Modou Lo sa relation ak Modou Lo fu mu jógee ak lu ko indi waaw sama relation ak Modou Lo lu yàgg la euh, li ñuy wax ne ñun ay xale lañ dëkkoon nekkoon dëkk man géejawaay lañ dëkkoon jógee géejawaay ñëw parcelle Modou comme li ma la rek lu ñu fi ma ko njëkk gisee mbapat la dawul comme yóbbu la daara nii affaire jàng nga daw jàng ñëw dégg làmb am rek nga dem ci dégg làmb ji tas ak ñoom naan diw diw amur boobu moo ñu booleeg moom mhm. tamit ñu koy supporté muy bëree ci làmb ji ñu koy supporté. ban mbappat nga ko njëkk a gisee. ngi ko njëkk a gis inte 3 terrain cosaan ñoom xaadim gajaga ñoo fa tëggoon làmb suma juumul ko falaa ko njëkk gisee. no bëri. non suur boobu bëreewuloon. Mhm. falaa ko njëkk gisee après ñu naan Modou Lo Modou Lo moo nekk nii ñun tamit si lañ ko topp rek. gis tamit muy def ci làmb lu doy waar di bëree muy neex muy am ndam ci mbapat jugee ko fa ñëw arène di ko toj loolu moo ñu boole ak moom. seetaan nga ko si mbapat. waaw seetaan naa ko ci mbapat. moo kan la loo ci jàpp ci mbapat mi kan nga jàpp. mbapat bu ma ko seetaan interneuf la amee woon. waaw suma ma jour boobu la doon bëree Fallaye de su ma juumul Papa Sow mi da ci doon Papa Sow da ci doon bëree waaw. mbapat boobu moom seetaan naa ko li ju lu weesu mbapat boobu nag man li ci bëri Gàmbi laa gënoon a féetee. mbapat boobu moog Fallaye moo daanoon Fallaye de wala ku daan. non coow li daal bëri na. Fallaye waxuñu coow lu bëri na moog Fallaye de ku daanoon laa li nit ñi wax coow li bëri na. xoolal bu fi far ba wax moog Fallaye de ku daan. non ci biir mbapat bi bëri dafa bëri ay action yu fa am. comprendre nga dem nañ ba ci bëre bi du sax dafa bëre ba bàyyeeku. site bi daal maanaam ni mu amee da ngay a ba tas. jam sportif kon fan lay deux moo daanoon Modou Lo. waaw ah loolu la ar la gars yi wax. waaw da nga am looloo am. o c'est que booba tamit ñun dañ gënoon nekk xale quoi mënuñ ci mun mun si leeral lu bëri. saa la jamay kee mi waxam ji ajurum ngooñ de. astafurlah. kon fan lay dee ku daanoon mais léegi mu ñëw ci arène di bëre nga gis ko. moo gën a jàpp ci moom ak lu tax nga jàpp ko yan valeur nga gis ci Modou Lo ba tax nga ànd ak moom sincère ci moom parce que dañ la daan dégg ci rajo yi ci plateau télé fu fay dem di ko défendre mu jaral la lu waaw loolu moom dëgg la ñëwee ci arène bi ñëw sax ngoon ñu jógee suñu koñ ñëw di ko seetaan écurie Rock Énergie muy contact boo xoolee écurie bi mu nekkoon ñëpp dañ ko suut ëpp ko doole. day ñëw contact maanaam defee tamit ñu ko fay daan da nga koy compter. xam nga nga xam ne kii nii bu fekkee yow lamb rek moo la ñor ak suivre lamb bëgg làmb bëgg gox bi nga nekk tamit am na ñaakaar ci moom xam nga ni kii war na mën a yegg ci làmb fu nekk loolu tamit moo tax ñu suivre ko comme li may wax rek carte membre bi ma njëkk a jënd Rock moom moo tax moom moo tax man ma jënd ko mu ngi nii man moom laa njëkk a jënd ci écrit ci écrit Rock Énergie boo xoolee li dem nga njëkk a jënd euh, parcelle Rock Énergie bii laa njëkk a jënd Rock Énergie waaw te Modou Lo moo taxoon ma jënd ko deux deux mille huit. deux mille neuf deux mille dix lañ ci def. waaw waaw waaw bi deux mille neuf deux mille deux saison deux mille neuf dix boobu. ñu ngi membre bi ñu ngi ko doon jaay mil francs boobu moom mu ci écrit bi am na ay garam yu fa nekkoon waaye ñun sopp ko moo taxoon ñu jënd carte membre bi moo taxoon ma jënd carte membre bi bi laa njëkk jënd ci carte membre écrit Rock Énergie bi ñu ko jëndee continuer chaque Rock Énergie lu ñu xewle ñu ngi ci ñu mm. ñu xewle ñu ngi ci ñu dem fans club taxaw ñu jëndal carte membre nekk ci fans club gaa duñ fi daan nekk lu bëri waaye lépp lu fans club bi xewle bu ñu ko yëgee dañ ciy teew sunu dërëm daf ciy dem ba booy topp mbër da ngay dégg lu nekk xam nga làmbu topp mbër amul njëriñ làmbu nii la ngay dégg lu nekk say famille fu ñu toog di wax ci yow amaana yow amul rek tey sénégalais yi non non wax jooyu ma de géej adiyaaral dama dégg ngeen di dundalee écrit bi topp mbër est-ce que neex na wala yomb na topp mbër moom Babacar boo mënul muñ dëgg mënoo ko def lu tax non yow xam nga ci dara yàgg nañu xamante ndax da ngay topp mbër te yàlla tax yàlla nattu la ci tey ñun ay Sénégal lañ am na ñoo xam ne dama koy wax yàlla ngi leen nattu ci joueur boo xam ne nekku fi wala beneen espoir boo xam ne defewuñ ko ci réew mi ñu bëgg ko waaye boo nekkee sénégalais làmb amee ci réew mi nga topp làmb bëgg làmb ñoom gisee wuñu noonu lu ne lañ lay wax. Mm-hmm. comme daanaam wax ji su ma la déggee dañ naan jamaykee bëggut lu baax wala amul métier wala day taxawaal wala. waaw ah, waaw lu ne ngay dégg. man dem naa ba ay jamono dëgg. samay famille fu ñu toog xajuma fa. lu ne ngay dégg tiw mbëri la topp chaque jour mu ngi ci làmb ji mbëri la topp amul liggéey liggéeyul te fekk du ñu xam. yow gis nañ la ngay topp nit rek supporté ko ni bëgg ko te yàlla tax rek fu ñu toog ci yow la ñuy wax. mais topp boobu moo du pour prouver ne que bi am na njëriñ am na lu bu baax a baax a baax a baax. comme lan am na lu ma jural te wax boobu wax ñu ñu doon wax moo taxoon man ma ne man làmb du ma ñëw rek. topp mbër dama am lu ma ciy wane. dinaa wane ne topp mbër dafay am njëriñ dinaa wan fan sa club leen bul topp mbër ba fàtte sa bopp. dinaa wane ci loo xam ne làmb képp kuy ndaw bëgg làmb war nga ci jël référence. te yaakaar naa si kanam tuuti di ngeen ci xam dara comme li ma la wax carte membre laa njëkk jënd ci làmb Brock Énergie ma ñëwaat jënd carte membre fans club dem ba ci biir ma ne man làmb ematuma ci fans club damay nekk amateur am karta membre amateur jugee koo fa entraîneur yi bu góor baax mu ngi fi waaw entraîneur yi di def seen formation diplôme entraîneur yi ma dem bokk si lu jiitu loolu yow xam nga ne làmb boobu ay site internet yi bëriwul amul sëriñ yi wax ci làmb mm-hmm. tey làmb ñaari mbër dañuy bëree mm-hmm. nit ñëw laaj ma may la làmb ji nii lay demee du si du si dara nit ki lépp loo yàgg rek war nga ci am xam-xam mm-hmm. waa di nga ci war a am xam-xam quoi boo xamee mbëri dëgg bu combat taxawee ñaari mbëri nga xool leen techniquement tactiquement war nga xam combat bi fu muy mujjee kii lan moo ko ci arrangé ak moo ko ci arrangé yow xam nga ci loolu dara. loolu moo taxoon nga dem defi forme. ma ne comme man maa ngi wax ci làmb yàlla dimbal na ma làmb lu ci sa combat yéen da ngeen ñëw ci man ah combat diw ak diw nu muy demee ma ciy wax yàlla di def nu ma la koy joxee muy demee noonu ma ne comme gars yi dañuy def formation entraîneur bàyyil ma dem bokk xañ na am na ci kele yoo xam ne wala site yoo xam ne xamaguma ko bu ma demee dinaa ko jàng jëlee fa njëriñ même su ma ko deful pour nekk entraîneur sax suba dinaa wax ci làmb lu nit dul dindi. loolu moo waral ma dem defi formation ba ma koy def tamit maa fa gënoon nekk xale su ma juumul kenn ku toll ni man naan day def formation entraîneur musul am boobu mooy première fois ci làmb ma ci remercier entraîneur yëpp nag Père Mbaye Diallo ba suuf ak du jànjeeku nga xam ne moom moom a gën a motivé pour ma def loolu noonu ak président Cheikh Saw moo nekkoon président écurie Rock Énergie boobu maa ngi koy jaar bu baax di ko nuyu di nuyu président fa nekk léegi bi Xaadim Gadiaga moom bindal lettre si tur écurie bi ma dem defe ma ñëwee laaj nañ may leen man nag lii defuma ko pour nekk entraîneur pour toog baa ndax xale laa mun naa dem defi leneen ba dama koy def pour gëstu am xam-xam wala ma wan jeunes yi ne leen lamb li ñoo ko moom ci réew mi la nekk te ëllëg ñun ñoo koy mujjee moo taxoon ma dem def ko kon am nga euh, diplôme entraîneur ba ñu no ba maanaam ba nekk entraîneur tey. am naa diplôme entraîneur am blouson lépp ba keroog bi ma ko joxee noonu laa jëlee blouson bi lem ko jën ci ne man diplôme bi li ma ci intéressé du pour toog nekk entraîneur. damay gëstu ci làmb ci xam-xam suba suba suba bu ñu ma beneen formation damay dem participer si bokk ci ndax ëllëg nu mu yàgg yàgg yàgg ñun ndaw ñu ñoom ñu jël. carte de membre fans club ba ci entraîneur ba ci promoteur tey nga nekk tey tamit promoteur ndax yor nga licence promoteur léegi. waaw ma nekk promoteur yor licence promoteur lu jiitu may nekk promoteur boo xoolee 2015 ba 2018 bii. combat yu am yëpp yow dekk nga ma micro. waaw bëri ñu jàngatal de moom. jàngatal la wax wax la ci loo xam ni dara du ko dindi benn kilifa sax moo ne ma bàyyi ci làmb yi ngay analyser léegi quoi moo tax lu ci waaw lu ci bëri waxatuma ci. Uh-huh. ba entre Eumeu Sène Bombardier Sa Thiès Boy Niang Balla Gaye Gris Modou Lo Lac de Guiers lépp lu ma ci wax dara dañul loolu nag da ngay yàgg ci lamb waaw du ma ko teg ci ay affaire sëriñ wala dara di way daan ci làmb loolu du xam-xam ba léegi nii phénomène bi jóg ci làmb bu nit waxee ci làmb di way daan youtube bi ñëpp tas dégg ngeen li di wax lool du xam-xam ci làmb lamb boo ci yàggee mu ngi mel ni ngay dem école di jàng boo yàggee ci làmb dëgg-dëgg ñaari mbër fu ñu taxee war nga xam kuy daal waaw. am solo léegi daal kon ñu jeexal ci paasu fii ñu ci jeexale mooy Modou Lo tey maanaam sa ànd ak moom mujj na la jural njëriñ daal par rapport ak ñi doon wax ne da ngay taxawaaloog lu leer. waaw loolu moom xam nga ci dara ndax mooy li may wax rek nit ki lépp looy def na nga ko def te yàlla tax ànd moo ñu boole mënoon nañu dund ba dee te duñu xamante bu ñu xamante moom mu yëngatu ci làmb ñun ñi ay doomu sénégalais yàlla nattoo ñu ñu bëgg làmb mm-hmm. nekkuñu ci leneen nekkuñu ci lu ñàkk fayda xam nga nañ accepté ànd boobu noonu ba da ngay dégg lu nekk léeg-léeg sax xam nga parce que naa ma lii tey laa la koy Babacar man sama mag jël na këram jaay ko jaay na benn këram yëkkati deux millions cent jox ma na demal voyage yaa ngi dégg toogu ma de ma téye xaalis bi di lijjanti yoon affaire xaw a dëgër tuuti mu ñëw benn jour laaj ma cinq cent mille ma jox ko mu ñëwaat pour laajaat ma ma ne kii su ma ko joxee xaalis bi ba mu jeex suba dina ne kii dama ko joxoon xaalis demul mu toog fii moo taxoon ma jël ko may léegi baal ma fi bu wutal sama bopp yoon mu def sama bopp yoon dem ñu dóor ma lekk xaalis bi lu mat deux ans billaahi wallaahi wa taala fu ñu toog dañ naan ci làmb ji laa ko def kii jox nañ ko xaalis ay magam jox nañ ko xaalis mu jël xaalis bi def ko ci làmp te yàlla sedd na ne def ko ci làmp au contraire kon yow su ma la déggee mu da lay dimbali sax waaye li ñu yaakaar amul ah non loolu loolu amul ci làmb laa ko def may dégg lu nekk moo tax tey li lépp loo nekk rek gëm sa bopp yàlla dana siy dimbale ma jàpp rek na man làmb ji nii nit ñi dañu am seen xaalis ba pare door a ñëw ci làmb man dama gëm ne bi may ñëw ci làmb yoruma te ci làmb waaw indiwuma faraan de waaye ci làmb dama ciy tedd ndax làmb même bu ma yàqalul dara yàqal na ma dara ci image si ay wax say mbokk fu ñu toog waaw fu ñu toog wax ci yow te man yàlla suturaal na ma wax dëgg amul lenn loo xam ni diina ter na ko lislaam tere ko ma nekk ci muy lu bon léegi de nekk ngeen roi des arènes xanaa léegi kon sa xeex mat na de wala. waaw léegi nekk na roi des arènes yàlla defal na ko loolu lañ loon ñaan mu doon roi des arènes ndax man lu jiitu muy doon roi des arènes xëccoo ju na ko 2015 perte ko wax dëgg ci diggante bi ma nekk promoteur tey nag wax dëgg nit ki sa ànd ak moom dafa am fu muy yem. xaj na yàlla moo ñu boole xamante nañ ba pare sunu grand la sunu lépp la ñu ne moom nekkatul ay affaire làmb famille lépp lu mu xewle ñu ngi ci waaye boo xasee ba dem nekk promoteur da ngay sol beneen casquette comprendre nga. tey suñu diggante ñëpp xam nañ ko bat bu demoon tey ba yàlla def man ma koy tëggal làmb sax dama koy tëggal làmb nii rek waa la koy may ndam moom moo koy def. est-ce ca ngay yem. non si laa yem. da ngaa bëri ay affaire de. non loolu moom nit ñooy wax rek ay dama bëri ay affaire tey làmb naa la ci xamal ñaar koo gis mu nekk ci làmb dafa am lu ko indi ci làmb. promoteur promoteur boo gis wala entraîneur boo gis wala ménager boo gis wala supporter boo gis làmb ku fa nekk rek am na koo bëgg ba tax nga dugg ci làmb ñii wala nit ñi xamewuñ la ak ñoom ba nga ñëkk ci làmb ñii nag da ngay ñëw mu fës nit ñi xam la ak moom ba léegi seen diggante mënatoo ko nëbbu man su ma taxawee naan faralu ma Modou Lo waxuma dëgg ndax adduna bi yëpp moom lañ ma xamee tey mooy sama yoon bi ma indi ca làmb man am na ñeneen ñoo xam ne nag yoon leen indi même bëri tey ñuy bëri même ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye kenn ku ci nekk na koo bëgg ba ñëw ci làmb man nag yàlla moom la mën a toog ba ma ñëw ci làmb waaye guddi yi nii yow xam nga ne promoteur la léegi kon dañuy ñëw léegi ci promoteur bi wala tamit nga am la ma cofal tuuti ci affaire roi bi léegi Modou nekk na roi des arènes mais dafa bëri ren ñaari combat ci saison bi mook Balla Gaye mu ñàkk mook Eumeu Sène mu gagné mook Balla Gaye yéen da ngeen ci maanaam mystiquement est-ce que da ngeen a pare wukun contre Eumeu Sène est-ce que da a pare parce que wax yi ci am dafa bëri quoi ñi naan ñi jàppoon na ñi naan ñi jàppuñu ci ban taxawaay ngeen ci am ak tamit dem kër Eumeu Sène ay miin am nañu jot a fer ci mbedd mi yow sax est-ce que tudduñu la ci demoon kër Eumeu Sène <laughs> waaw Modou Lo mi muy bëri Balla Gaye wax dëgg fekk na ñu nekk promoteur dëgg làmb def nañ boobu benn journée war a tëggaat beneen na ñu woon ci waajaay sunu événement muy diggante laay Pythagore ñàkk jariñu yaakaar naa boobu amuñu jot sax di dox ci yooyu ndax Modou am na ñu koy doxal lool ñun li ma wax supporter mhm. supporter la ñu seq ak Modou sunu nit la nag sunu lépp la lépp lu mu nekk ñu ngi ci lu ñu ko mën a jàppale dañ ko ciy jàppale. mais contre Balla da ngeen ci lu xewoon ba ngeen ñàkk. no contre Balla dafa war a ñàkk rek yàlla moo ko war a xañ xañ ko ndax Balla gay champion la def na ci làmb lu nekk. Mhm. mun na daan mbër mu nekk. waaw Balla Gaye képp ku ko daan rek danga ko mérito moom tamit képp ku mu daan def ko mérito ndax mbër la champion la ku bëgg làmb rek te nangu loo ko lu ko yàlla may da ngaa soxor. bi ñu doon wax kër Eumeu Sène ci combat ak Modou Lo bi passé da nga cee bokk. non yooyu moom Babacar yaakaar naa boo ko déggee ci mbedd sax waroo ko gëm ci man. non baabakar mu amul lu muy gëm ak lu muy gëm di yow yaay leeral yaa jàkkaarloog sénégalais yi. dama lay wax Balla Gaye ma naw la. lu tax nga naw Balla Gaye wax dëgg man nekkuloon sama mbër mosuma ko faral ci làmb ndax nit ki moom da wax dëgg te yàlla tax Modou Lo la ma ñëpp xamee daf dañ ma daf ma fekk TFM ñu dajee fa waaw mhm. combat moom Modou Lo boobu taxaw na mu ñëw fekk ma maa ngi toog bu sóoraale woon loolu ci man duñ joxante loxo wala du ñëw kaf man bëreeg man mu ñëw jàpp ma yëngal ma félicité ma ne ma da am jom ñaanal ma mhm. yaa ngi ñu dugg ci biir Lamine Samba moo doon animé émission bi xaj na mu xalaat ne gis na man ni ma mel ak Modou Lo ñu war a toog ci plateau bi Lamine na ma kaay taxawee nii Balla Gaye ci boppam moo ne ko bàyyi ko mu ñëw toog fii sama wet Balla Gaye mooy Lamine Samba bàyyi mu ñëw toog combat mu Modou taxaw na ci biir préparation combat bi laa la mu ne Lamine Samba bàyyil mu toog fii sama wet booy bi na ñëw toog fii sama wet ma ñëw toog ci wetam mu ñaanal ma encouragé ma gars yi ma àndaloon sax ñu ngi may sànni xeer mu ne ni tooñ loolu mooy sport tey man mënuma xañ Balla Gaye li ko yàlla war a may comprendre ga man làmb su ma xamoon luy daan mbër ma def ko sama bopp waaw beneen bi si bi nga ñëw combat Eumeu Sène bi ak Modou Lo en tant que promoteur ñun tey boo toppee mbër Babacar ay moromam yëpp nekk roi des arènes déggul daal yi doonul roi des arènes la gënal ndax loo gisu nekk rek palmarès sax même borom seret boo koy gungee sax ñaan nga yàlla mu fexe ba seretam boobu muy dawal mu nekk ci en moo tax tamit bi mu ñëwee ñu war a bëreeg Eumeu Sène ñun buñ ñëwul tey dëkk nekk doomu parcelle kon yëpp nekk roi des jël roi des moo Modou jëlagu ko wax dëgg yàlla buñ ko jàppalewul rek gorewuñu jàppale bi nag du ci dara ñëw nañ suuru làmb ji féeteeg moom xam nga ak lu ñu nekk nekk promoteur wane ne tey dañ koy ñaanal pour yàlla may kon mais kër Eumeu Sène ci miin yooyu ak kër Eumeu Sène tey yow bu ñu la waxee loolu en tant que sénégalais war nga ko bañ a gëm xam nga lu tax man du ma gëm ak a gëma ndax da nga dem kër Eumeu ci ay miin da nga ca bokkoon wala naa loolu casquette bi ma am. du ma dem naan damay dem kër Eumeu Sène damay xaru kana man su ma demee bay miné Eumeu Sène du ma dem këram baaw. Eumeu Sène tey làmb ji fii tey ñu ko fi gën a xam man bëriwul. da nga xam Eumeu Sène. non xam naa ko bu baax a baax baax. ndax foo ci loo ko xamee. fi ma ko xamee yàlla dafa dogal man. Gàmbi laa nekkoon. nekk ci ay auto transport. billaahi wallaahi wataalaahi dëkk yaay Eumeu Sène fanaan nañ fa fanaan naa fa du benn yoon du ñaar yoon ñu ñuy defal teraanga waa dëkk boobu. tey man ma Sène tey su ma amoon lenn lu ma koy def wala mooy dem du ko miné du ma dem këram damay jël fii sama oto dem ba Gàmbi dem Birkaama bu ma jógee Birkaama dem Minina Madina Ba dem Koloro dem Bonto dem soto koy non dem Bonto dem Pirang Faraba Sutu dem soto koy Kafuta Bloc bu ma demee ba Bloc ma dem Kuram ñii di daa mel yow ñii de li nga wax nii doy na. dama lay wax xam nga femme yoo xam. mais yow est-ce que fi nga wax yëpp demoo fa. non non dama lay wax ba ma demoon ba koy miine laa la wax du ma dem baaw ndax dama mën naa la yóbbu ba biir kër yaayam fu mu nekkoon. mosoo mas nga wax dugg kon. ama seen bi muy bëreeg la de guerre de seen combat bu njëkk 2010 le 28 février la woon su ma juumul le 21 février ah jour boobu bi muy xëy samedi boobu wala dimanche sax ñaari jours yi benn la ci dëkk ba la ma bàyyi. moom ama seen dëkk boobu noonu dama fa am cër tey bu ma fa demee. ah lu mu fa mën a am mun naa ko fa am ndax dama fa yàgg dem. comprendre kon du ma bàyyi ba muy bëree man fii dakaar may ànd ak ay naan damay dem këram di ko miini. loolu amul daal. loolu yëpp ay wax la rek. waaw léegi su ma. si raxu ceeg wala Moodu ñeen ñi ne loolu du mystique Moodu fa mu ko dóor a baax ak yooyu. non làmb moom lu ne nga ciy dégg fii ñëpp ay mystique mbër muñ ci fay xaalis da ngay dem seeti say mbokk sem seeti ñu lay ñaanal. làmb la dañuy daanante ñoom neen seen biir boo xoolee carte gi nu mu demee rek du ay affaire mystique Balla Gaye daan na Modou Lo ñaari yoon Modou Lo daan yoon Eumeu Sène daan na Balla Gaye ñaari yoon yàlla ñoom neen jox leen ñoom seen biir ñuy daanante waaw du ay affaire mystique wala dara. Modou fu mu jëm léegi. waaw man comme li may wax rek fi ma toll ci làmb du man damay wax Modou fii lay jëm wala fii waaye am naa. moog Ama Baldé am naa droit joxe sama xalaat ci làmb. moo doon Ama Baldé combat la. Hmm. Modou ak estafam ñoom ñooy xool Modou fu muy jëm ndax damay dégg ñuy wax Balla Gaye 2 ak Modou dañoo bokk ci làmb ñoom ñaar ku ci manqué ci làmb day feeñ kon bu yàlla defee lu mu def ren lu musul am si histoire làmb Balla Gaye ak kenn ku nekk jógee ci ndam lu rëy nañ leen bàyyi ñoom ñaar kenn ku nekk mu jaar yoonam ñu suqali làmb ba ci kanam ndax Balla ah. bu nekkee ci làmb nekk en top nekk ci làmb nekk en top un rek làmb defaru ndax boo xoolee at yëpp kii bu nekkee ci làmb keneen ki day xaw am ay difficulté wa waaw làmb ji di am kii kii di manque ci làmb kii ñëw ren yàlla dimbale leen Balla gay am ndam lu rëy ci Modou Lo Modou Lo am ndam lu rëy ci Eumeu Sène ñoom ñaar yëpp ñu ñëwandoor wax dëgg fa yàlla ku bëgg làmb di dund waxoo waxu supporter ñoom ñaar seen combat dafa teel kon Tapha Tine nag xanaa léegi war ngeen ko mën a jël comme da nga da bëgg mu du jaar yoonam moo Tapha waaw Tafa maa koy profité di ko nuyu sama waay la maa koy jaar bu baax moom cirib yow na ci làmb lu nekk mun loolu ñun ñëpp combat la bon ñun en tant que amateur waxuma ay waxu supporter waxuma yoonu làmb ji nii nii gën a mën a ubbi làmb mooy ñoom ñu ci bëri daaw dañu ane balance bëriwuñu yan combat nga gis léegi nga nga wax ma en tant que amateur wala en tant que amateur euh, euh, promoteur bu bëgg a tëgg la ma ay combat yow yi nga xam ni bu amee làmb ubbeeku Balla Gaye Bombardier jaadu na Ama Balde Gris Bordeaux dañoo war a bëree Ama Balde yegg seen ci kaw dañoo war a bëree moom Tafatine Lac de dafa jaadu wala tafaatin Eumeu Sène mhm. wala Lac de Guiers Eumeu léegi loolu bu yàlla defee mu am may ma rek Modou wax na ñëpp di ko dégg ah. bëri na ñaari combat ci année bi mm. ñëpp xam nañ ne dafa daj ay coono muy combat VIP yoo xam ne bu ci nekk dafa métti mu day taxaw stand xaar leen. kon day année balance su la déggee de. wala fin saison la nar bu ñu bëree seen biir fu ñu toll nii combat Modou Lo du biir day xëy wasin Balla Gaye Bombardier bu taxawee ku daan force da ngay bëreeg Modou Lo Ama Baldé bu taxawee ku daan force da ngay bëreeg Modou Lo Lac de Guiers bu taxawee ku daan force da ngay bëreeg Modou Lo Tapha Tine Eumeu tamit bu taxawee ka saalika noonu ba loolu nag ku si yàlla nattu may la sens nga njëkk a bëree sa morom boo daanee amul baat ak tontu seen combat dafa war a taxaw loolu mooy li arrangé lamb mooy yoonu lamb léegi Jamaïcain en tant que promoteur ñu ngi dégg sa combat combat boobu sa taxaw na bàyyi ma ñu ne xoyantaan combat boobu pour ñu tëjee foo ci toll ak euh, parce que saison ko doon xaar te mujjul am lan moo tax amul ak su bu amee déwén fan lay amee waaw bàyyi ma ñoon xoyantaan dañ ko taxawal combat boo xam ne nii combat royal la waaw combat royal combat royal ndax xoyantaan mooy roi des arènes bu Gambie bu Gambie ma ñoon doon mbër moo xam ne champion la fii ci réew mi bëri naa ku nekk ñun ñëwuñ ci làmb en tant que ay promoteur nii dañ ñëw ci làmb pour def ay événement même chaque année buy nekk benn na nekk làmb joo xam ne àdduna bi dañ ciy bàyyi xel ndax wax dëgg bi ñu ñëwee ci làmb fi ñu commencé da ko wane góor a soog bàyyi ma njool la ñu tëgg ñu naan dina am ak du am ñu ñu réussir ko ñu ñëwaat ci laay Pythagore ñaq jariñu la 14 avril bii tey bu ñu doon tànn journée yi dàq ci année bi doo ko ci génnee nekk na journée boo xam ne sénégalais yi bàyyi woon nañ si xel ñu ñu jógee ko si ne dañuy dem Gambie pour tëjee fa suñu saison bi ñu demee nag si diggante bi xam nga xaw am ay yaa ma gën a xam ay kalkal ñu ne léegi nañ bàyyi ba mois de juillet bi ñu def ko ci because koor geeg coupe d'Afrique bi mois de juillet bi Gambie di teel a taw comprendre nga bi Gambie nekkee ci nawet ñu ne léegi nañ jël làmb ji ko novembre loolu moo waral ñu wax ak ñaari mbëri d'accord ak ñoom ci ay kàddu mu war a jëm le 10 novembre bii di ñëw Gàmbi waaw promotion bi incha allah bi semaine bii di ñëw rek dina commencé war nañ fa def benn conférence de presse boo xam ne dinañ invité presse sénégalais yëpp ñu ñëw jàppale ñu képp kuy mbëru làmb sama combat boobu Gàmbi maa ngi la ci invité ndax man produit làmb laa produit làmb laa man jóolewuma sama xaalis fële rek ñëw ci làmb man damaa nekk ci biir làmb xam nga di si dox ay jéego ba tey ma xëy nekk promoteur ay mbëri maay seen promoteur fans club bi maay seen promoteur amateurs yi maay seen promoteur même promoteurs yi maay seen promoteur comprendre nga ndax tey bu demee ba benn sën di xalaat di am fit naan dangay ñëw dugg ci làmb wax dëgg yàlla c'est mois am na solo léegi euh, Lirou Diane ak Wouly tamit dégg naa yaa ko tëgg. Lirou Diane ak Wouly tamit maa ko tëgg. Gambie la ñuy bëree wala. ñoom ñaar dañ bëgg a bëree Gambie bëree Sénégal ndax ñaari dëkk yëpp dañoo am si ñoom cër Sénégal dañu xaar combat waa Gambie dañu ko laaj léegi dañuy signé ñoom ñaari contrat dañuy bëre ji Gambie novembre janvier ñu ñëw waat fii Sénégal mu nekk ñaari combat seen diggante li amoon si Tyson ak tubaabi joor moom lañ bëgg a indi. non Tyson dem si yàlla Mor Fadam yàlla na ko yàlla yërëm Mor Fadam. ñu ngi koy jaale ay mbokkam di ko jaale njabootam gi yëpp moom lañ bëgg a indiwaat si diggante wulli ak liiru jaan waaw. jam looy tàggoo. li may tàggatoo mooy di sant ñëpp di gërëm ñëpp am na foo xam sax dañ ko dog tey bu jam jam dekkee ba demee ba nekk promoteur grâce ak fi ñu nekk nii muy sunu papa père ba. ndax bi ma nekkee ci làmb nekk fans club nekk def ay affaire di liggéey moo ma woo dama lay jàppale ci loo bëgg yëngu ma ne ko ci làmb laa ne ci làmb laa yëngu ndax leneen lu ma liggéey loolu làmb rek ba moytul mu saay làmb man si laa war a jaar ba mu ubbiloon magasin def ci ay milliards bu dimanche amee dama koy tëj dem stade waaw danga ko booleeg leneen ndax làmb du métti père ba ñu jàppale ma ci loolu taxaw ma ci may wax ne bu Sénégal yëpp doon def ni moom kilifa yëpp doon def ni moom xale yëpp am nañ ci lu ñu jàpp ndax boo xoolee jeunes yi sunu morom yi ñooy bàyyi dëkk bi di jël yoonu gannaaw bi di topp mbëkk mi ñu naan africains yi dañu war a toog seen dëkk kon bu amee ay jeunes yu volontaire nekk si dëkk bi na leen état bi jàppale taxawu leen jeunes yi toog fii liggéey jeunes bëgg nañu liggéey de waaye da ñëw fii ci réew mi pour liggéey au lieu que ñu taxawu lay fakkatal comprendre nga loolu nag moo tax ndaw yi di fàq di jógee fii di dem encouragé wuñ nag kenn muy dem na ndaw yëpp toog ci dëkk bi liggéey waaye na leen état bi di teg loxo jàppale leen maa ngi koy ziar di ko nuyu di nuyu njabootam gépp ndax tamit borom kër lépp lu mu def rek mu réussir daa neex njabootam kon maa koy ziar di nuyu njabootam di ko commencé ci Mansour mi nga xam ne mooy góor maa ngi koy ziar baax baax fii tey ñu nekk moom moo fi ne maa ngi koy nuyu di nuyu soxnaam di nuyu ay rakkam ak ay magam waa kër gi yëpp bàyyiwuma kenn képp kuy toog fii maa ngi lay ziar ñoom Pape Gora ñoom Papa Gueye ñoom Souleymane ñoom Daouda Gueye ñëpp maa ngi lay ziar di nuyu Papa Sow ak maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tamit Modou ak ñi muy àndal ñëpp wax dëgg gars koy jàppale nga xam ne ñoo koy taxawu ñëpp maa leen di ziar di nuyu ñëpp di nuyu tamit koo xam ni sama xarit la maa ngi koy nuyu baax a baax muy Seydou di ci monsieur le ministre Amadou Ba di nuyu Amadou Ba ministre bu baax a baax a baax di wax ne moom mu ngi jàppale jeune parcelles yi te gën a jàpp xam ne nit amoo leneen lu gën sa gox te bi mu ñëwee parcelle ba léegi waa parcelle réccuñ ko ah ñu ngi lépp lu mu bëgg yàlla defal ko ko di nuyu frère am Ba bu baax a baax a baax di wax ne li mu bëgg ci àddunaam yàlla na ko yàlla defal di leen nuyu yow tamit di nuyu Talla Ndiaye sa caméraman di nuyu waa Leewtoo TV man ak yow comme li ma wax rek fi ñu dajee dafa bëri dañoo daje ci ay bànqaas yu bëri kenn gënu ma laa xam yow tamit. man it kenn gënu ma laa xam. ma laa xam yaakaar naa bi ngay jógee dëkk ba ñëw ñu lay may carte d'identité <laughs> si carte d'identité yu doon mis Abdoulaye si nga am. taala kii day dóor maa ko xam maa xam ni mu tudd kenn xamul ni mu tudd maa xamul turam maa ko njëkk wax ci rajo bi bu dof dof la ma waxaat ko tey jamaykee rek la mais tuddut jamaykee dóor kat. non sama waay la maa ngi moom dañoo yàgg a xamante quoi. sama booy la nag booy bu baax la tamit macha allah. maa moom dañoo bëree bëree bu dëkk ban si. Ngaparu Ngaparu nu bëre ba demee woon nettali a gars dañoo football match célibataire contre mari ñu gagné leen yéen célibataire yi ma sonn ñëw nga ne force di nga bëreeg man ku jóg nga daan nga ko wax man kenn du tëgg sama kanam góor mokk leen ma jóg man bañkat la ma jóg bëreeg yow après may la nga daan ma mais revanche bi mu bis bu amee na say mbokk waaj ak waa parcelle jil bi ma lay waaj na su ma la ko daanee. xalaat naa fii ngay jaare dellu fële nga di di nuyu staff Jam Production ku ci mel ni Gilen Gils maa ngi koy ziar ñoom Paate ñoom Ous nga xam ne tey ñoo fa nekkal jam production mënu ma nekk fii nekk foofu ñoom ñoo fa nekkal di ma taxaw nekk ci combat yi di ci jàpp maa ngi leen di new di nuyu ñëpp di nuyu waa BMJ di nuyu bu ñëpp ñoom Matar seen ñoom Gandhi di bàyyiwuma kenn jàppale ñu fa yéene nañ pour ñëw indi fa événement boo xam ne incha allahu rabbi. c'est spécial spécial di éviter nag mbër yëpp xam nga ne. le roi des arènes le nouveau roi des arènes bu jour baaba combat roi yàlla mooy joxe couronne bi incha allahu rabbi di éviter mbër yëpp képp kuy mbër am fan sa club Gambie maa ngi lay éviter Balla Gaye 2 Ama seen mi niveau roi des acte ancien roi des arènes maa ngi koy éviter Ama Baldé Tapha kenn di nuyu waa gàmbi yëpp di nuyu ñëpp suñuy mbokk suñuy xarit ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay Babacar vive